ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes de l'info. waa maire mi ngi noonu aussi tamit euh, ñu gisoon temps yii passé affaire Aïda Diallo bu ci euh, période gàmm gi euh, ñu gisoon ne daa am ñu ko bëggoon kidnappé am ñu ñaan dañ ko bëggoon rey naka nga gisee loolu ak naka nga ko dundee. waa oto bi ci kanam mooy corne oto bi ci kanam rek la ñuy corne soxna Aida Diallo soxna Aida moom Cheikh Béthio la man may soxna Aida moom Serigne Saliou kon dèjà ñun la ñaari ndomba woon yoo xam suñu borom ñun la sàkk ci missionnaire u Serigne Saliou yi ma bëgg laa xamal ne jàmbaari Serigne Saliou ku yeboo tey ci ñoom parce que Serigne Saliou li mu fi teg dafa tegu kon ku yeboo tey ci soxna Aida Diallo buñ ko laalee laal nañ soxna Aida Saliou buñ laalee soxna Aida Saliou laal nañ soxna Aida Diallo ndox ñoo bokk Serigne Saliou man bi may teral yàlla seede na ni man lu ma war a am Serigne Saliou defal na ma ko Serigne saaliw mooy sama ministre mooy sama député mooy sama président mooy sama lépp teral na ma keroog bi ma juddoo mais euh, daf maa teral ndax dafa yónnee ay ndaw yoo xam ne daf maa defal teraanga yoo xam daf maa bett ngir jëmi Serigne Saliou kepp taxaw te xamuma amul sama numéro sax personnel mais dafa dafa ma gis ci internet bi xam ni ma toll ak sama cofeel ci Serigne saaliw du jëfal askan wi ci Serigne saaliw mu ñëw berte ma ay mbégte ak i xéewal yoo xam ne dafa ko jox ci taraanga booba euh, yii nii man fooguma woon ne sax lii dina am euh, bëgguñu ko woon rey nag dafa doon loo xam ne xay na kii saay-saay bi ñëw reye ko tax a jóg waaye même mu amee ba léegi yow woo nga wala moom woo na la ci ngeen diisoo ci nee naa la man awma numéro soxna Aida waaye defal na may taraanga te kam yónni woon taraanga yi maa ngi moom ñu ngi déggoo ba ma yëgee affaire bi woo naa ko nemmeeku naa ko def naa ay sarax te duma ma ci di ko saraxeel. pour jàppale ko moom. non dama koy jàppale parce que soxna ay dem mu Cheikh Béthio njabootu Cheikh Béthio lu bokk ci Cheikh Béthio te Serigne Saliou mais Serigne Béthio mooy mooy mooy mooy sunu capitaine ci taalibe yi mooy sunu jëwrin su mag ci Serigne Saliou ku laal lu bokk ci njabootam ginaaru Cheikh Béthio sax boo ko laalee soxna ay da day jug ginaaru Cheikh Béthio boo ko laalee soxna ay da jug. mais mais mais mais soxna Aida est-ce que mës na dund loolu mës ay menaces. ay menaces affaire nga ko dund. man waaw man ci menace laa dëkk man ci menace laa dëkk. Mhm. ci menace laa dëkk man man man sama message yenn saa yi ma dégg message yoo xam ne dañ na naan yoon bii moom boo fa jaaree wala boo jaaree nii wala boo jaaree nii wala suba boo xëyee ginnaaw suba lii ngay yëg lii ngay yëg mais loolu moom wax ju yàqu la parce que ñun taalibe Serigne Saliou bi kuy jóg ci ñun. bu dee da ngaa jug rek coup bi daal am nga sens mais bu dee da ngaa jug coup bi mooy dootul daal dootoo amati coup dootoo am bunt parce que dañuy protéger wu. parce que sëñ bee ñuy protéger boppam nag barke sëñ Saliou. mën na lu ne ci nitam te mën na ne ci ay gaam. non man xam nga lan laay xam nga lan laay tiit man tiitatuma keroog bi ma juddoo doon murit doon taalibe sëriñ Saliou man bi ma juddoo mu wóor ma ni taalibe sëriñ Saliou laa man keroog laa gëj tiit ba fii may waxee ak yow barke sëriñ Touba. xam nga lu may tiitam bu ma tiitee rek leen na ma tiital gis lu ma war a faj te mënuma koo faj wala gis ku sonn ma war koo dimbali te mënuma koo dimbali loolu tiitaange la ci man barki seexul xaddim aussi tamit ah, mais ñu gis ah, temps yi dee yi bari na ah, ak tamit deret bi tuur bari na trop tey loolu lan nga ci mën a indil tey ci loolu non ñii dee moom suñu borooma ñu gën a noppe parce que xay na moo leen gën a soxla accident yi bari na sarax yi moo des non kooku moom sëriñ boobu man bugguma ko tontu parce que waxul dëgg day fen parce que bu xoolee Fa Bintu kooku sama doom la Fa Bintu sama doom la mooy ki dëkk Touba Bintu fii la dëkk faa Bintu fii la dëkk rafet jikko kooku fii la dëkk Fa Bintu kooku sama doom la kooku jigéenu Mouhamed Niang la kooku ci ñun la bokk kooku ñoo ànd xel comme di liggéeyal sëriñ Salim muy taalibi sëñ Babacar mais dafa bëgg sëriñ Saaliw kuy tarxiya faa bintu bëgg na la wàccoon ak yow am na yar am na teggin am na personnalité xam na lan la bëgg xam na fan lay teg tànkam kooku suñu boroom moo ko sàkk mu doon ndombawal eh kooku jigéen ju mën góor la faa bintu bu rayu ñàkk fayda yi du ci dee dee kooku jaru muy dem ci sëriñ kooku xolom mooy gàllaajam cër bi mu jox mag ñu baax ñi mooy gàllaajam te ca kanam la jëm ca kaw la jëm kooku bu mu tiit bu mu ragal ki wax loolu day fen waxul dëgg. ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes